leen ak jàmm ami site internet net bi TV li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy doo rek xiifal bi nga xamante ne détenu politique yi nag doon nañ ko amal rek te ñoom ñooñu rawatina ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy jigéenu Pastef yi nga xamante ne ñu ngi leen yóbbu foofu ca camp ci ñoom rek ki ci mel ni madame Adji Ndaw mi nga xamante ne nag dafa jóge woon Suisse ñëw fii Sénégal vacances dañ ko daal di woon jàpp ak ñu wax madam Mariem Ba moom tamit ñoom jamono ji ñu ngi ko évacué fi nga xamante ne nag moom mooy ci hôpital ginnaaw bu ñu ko agressé ba noppi li waral nag seen xiifal du lenn rek mooy anam bi nga xamante ne rek ñu ngi koy dundee foofa ci prison yi ba noppi rek condition de vie yu métti waaye nag ah, tàngaay bi nga xamante ne rek tàng na fa ak tàncaloo bi nga xamante ne rek ñu ngi doon koy eh, def waraloon rek ñuy def seen xiifal ba noppi rek di dénoncé nag bu baax injustice bi nga xamante ne rek ñu ngi koy dund mbir mu nu mel nag ñu ngi ko amaloon niki tey jii moo nekk seen fukki fan ak ñett bi ñu dakkalee lekk ak naan waaye kii di président Ousmane Sonko nag daf da leen feedu ci mbir mu nu mel apporté leen ab soutien waral